sëriñ bi daa sakkan te du jeex dangay doon mag mu am juróom-ñeent fukkat ci yoon wi boo xëyee déggloo mu sa dégg ci sëñ Tuubaa loolu sëñ bi rek koom te yàlla daa farak moom li yàlla farak moom mooy comme yàlla daal yoon yónni jibril ci yeneen yi moom yëmul ci di ko yónni ci moom sax waaye buy bind dañëw di ko dëgëral mu man a bind chayani fil xatti dul ay yi war na waral jinaasa këllu yi ne moom muy dëgëral ba pare di ma jox sama leeru làmmiñ moo tax suñu tubaab lu mu bind kenn du ko laam-laame ba pare yàlla moom man yëkkati sama lépp jëmee ko yàlla ak rasulullah rafaxatulillahi wa rasuli sama lépp jëmee ko yàlla ak rasulullah léegi nag Cheikh Ahmadou Bamba doon ko xam nee na yàlla mi fi des te doon alkarim yàlla mi fi des ba pare doon alkarim nga xam ne kuy tedd moo la gën tedd parce que kenn du teddanteeg moom ca ku amul tedd nga la ko jox sëñ Tuubaa ni muy kenn la suñu borom moo tax bu fekkee da nga jóg jàngi arab ñëw bëgg koo dingat doo ko mën a dingat ci ak daa bokkaale yàlla ak daa def lii déedéet moom yàlla rek la bëgg parce que sëñ Tuubaa nee na man yàlla rek mooy sama buur te bu dee sukkandiku ci yàlla rek laa ko def ba pare du ma bokkaale yàlla ci dara allahu rabbi wax na lay ihtamada kulli bila shirkin waxabasa samada lu mu la jural mu ni moo tax ngërëm li gën a màgg la ma yàlla fayee ngërëmam la gën a màgg moom moo yàlla fayee radda hawaaya li ri daawul akbara wa jaaga lii bi xayri suburi ba pare tabe tabee la ma alxuraan jox ma ko moo tax si Amadou Bamba nee na sama jullit ak doon gi ma doon ku gëm yàlla ba pare sama jullit rafet lool mam ba pare ma ci sax yàlla ma ko seddeel yàlla wax ci kuréelam ba ni Amadou Bamba mi ab jullit xaqan la te ku mën a rafetal um jullitam la sahida lillaahu benni mu'minu wa muslim wa muslim wa mudminu moo tax sëñ Tuubaa nee na xataayu jamono xataayu jamono man duma jublu nëx nëx yi ci nekk du ma jublu sama xol bi tamit du خط خط خل أم خل بخط بق بق مجمع الدنيا وجمان ضيق الزمان والحدا والكدر يسوقها لخير هم للخدر يلا دف مكو فقل ببرة يلا مي خني ما في دس ما مجخ مول ميوي أغلب باقي لو خلاص كل باقي يلا فينا مكو فم من النكنك يلا فينا مكو خيور ربي إلى يسوع لبات ولي بلا تقرر خمر جسمات تمن يلا دمور يلا نك نيور نتجب دلم nit ngi jaamu yalla lool foog ni yalla nangul nako fekk nangul ko sëñ tubaa nee na man lool duma ma dal sama deug sama borom lo ma sa jaamu nangul nako ya man bi khabil ta khalami wa suntani an maradi wa alami yalla nangul na sama lepp ba nak mom yalla sunu borom subhanahu taala limay bind diko jëmele ci yoon sa salama barke bi dafa gàcceel mo le ko musa bind ci rasulullah sama mbind mi gàcceel na sa bind mi lo khitabi bi khatti mukhjili kulla kitabatin bi xayri wajali legi sax dem na ba yag barke bind sama loxo la ko yalla def sama bind la ko yalla def Nah, nga xam ini nit day bind mu barke lool waye xamuñ ni la tax mu barke ma nga jige ci touba sëñ ila ya law yumnal khatti wa mad rabbi arahamati ina nee barke sama sama loxo la ko yalla def ba bare yalla sama borom mo bind moma jox yalla ni aji joxe ji seigne touba ku gëm yalla te nanguloon ko ba bare mom rek la doon jamm yalla ni aji joxe ji neena moma jox lo moma tagal ak bekor waxuma la sëñ tubaa sax waaye bu fekkee sëñ tubaa daa nekk ci yow nga koy dund moo xam nga jàng xasaayit moo xam nga yëngu ci bàmba ji wala nga sa lépp di sëriñ tubaa sax bekkoor doola jublu moo na yàlla miy joxe moo tax man du ma bekkoor ahtaniyallahu wa nihmal muxti bisran maa kulla balaa waxaati moo tax mos naa wax sëñ maxtaar penda jang ni ko xam nga ni nekk gi nga nekk sama biir kër gii moo moo moo sa gétti waajure sawara ndax nekk nga nekk man nee na mu ne ko ah mbàkk bi laaw mu ne ko rus naa nit di yeewoo fii sama kër gi ay waajuram nekk sawara waaw kon moom sëñ Tuubaa ku mënoon nitam la wax na it ni yàlla suñu borom moo ma dàqal mboolem xeeti lor yi man yàlla duma ma lor ba ci sama noon yi sax yàlla moo ma aar ci ñoom jëmmi iblis sax yàlla ma a dàqal nafa li xëri law nihmal baaxi madarati lil xëri saa i baaxi yàlla moo ma dàqal iblis dàqal moom la ba pare nee na comme ndimbal yàllaa ko dimbali waman nasru illa min indillahi as hakim yàlla ko wax ci alxuraan nee na may dimbali ñëpp sëñ Tuubaa nag nee na yàllaa ma dimbali ci ndimbalam ba iblis daf may sori ba pare képp ku ma bëgg a lor daf may sori sama borom akub yonenteem rek laa bëgg na bëgguma leneen dabba xidaaya wa athaya wallahin ila siwa xumriya rabbi al muhin sama dund yàlla def na ma ndimbal loo xam ne lu sax dakkalee doon waaye allahu rabbi wa nabi muhammadu wasilati wa nihma samadu yàlla du ma lor mukk ba pare nee na yalla yàlla du ma lor ba pare kenn yalla du nangu kenn di ma lor maam bu ma nit bëggal lor yalla du nangu ndax dafa fiir ci man yalla mo fiir ci man bëgg ko ma lor lam yaj'alil lahu wala sa yaj'alu xala ya wa huwa la yanjahil manam yalla duma lor ba pare bëggul ko ma lor bu fekkon dañu jëm pour bëgg ma lor yalla mo du nangu yalla du nangu kenn lor ma ba pare man sama karaaw mooy dugal aljana wax na fu bari sama karaaw moy sama mbindum loxo sama karaaw moy jam doon gi ma doon jaamu yàlla fii sama karaaw moy dugg gi mi dugg aljana par sax te dootuma fa génn xam nga bis penc lu métti la yàlla dafa wax ci alxuraan ni waxanat li wujuuhum lil hayyil qayyuum bu bis penc ba yéen kay yéen ñëpp seen seen xar kanam yi day toroxlu fi sama kanam ñëpp di daw yoon ci àll Isaa keroog buñ ko jubee ni ko yow lu tax ñu naan doomi yàlla nga ñeent fukkat lay nga doog a mën a wax yalla ko dabatal mu dora wax anta khultali nasi ittaqizuni wa ummi ilahaini min dun la khala subhanaka ma yakun li an khula li ma laysa li bi akh in kuntu khultu faqad alimtu tahlu ma fi nafsi wala hawla ma fi nafsik innaka alamu khuyubi ci suratu maida ñeen fukat lay nga do ko mëna wax yalla ko dimbali yonent yalla no ay nitam kero dañ ko wor ndax dañu wax yalla an ansir xawmak min xamli an yatihum asabun alim ñun ko waré musufa ñew ay bo jangé suratu in asna non xamni ñu musna fe ñew 950 ans 86 verset ñoko wuyu wala sëñ Tuubaa ko réussir ñu ko wuyu ñëpp bis penc bu métti sëñ Tuubaa nee na yéen bu yàlla waxee lii ci alxuraan bu ngeen di tiita katoroxlu man du ma fa fekk fu mu lay fekk mu ne ñoo ma fekk ñi may orienté aljana fi nga war a dëkk xool dafa jël baat bi yàlla jëfandikoo muy verbe boobu moom la jëfandikoo waxanatil wujuhu mu ni isa li rabbi xanatil wujuhu fajlil jinaani min hu li taw jihu bu ngeen di toroxlu seen kanam bu seen borom ma nga fekk aljana ñu may orienté na fi ngay dëkk mo tax sëñ tubaa nee sama karam moy dugg dugg aljana karaamati du la jinaana bi rafi man na waral jinaana janaana fa lay sax nak waa ci yalla ma yëkëti de man na waral lil janaana ba pare sama xel mu ñaw mi ma yor man sëñ tubaa lool ak cant yalla la bu nit ñëw ni la sa xel mi nim ñawé da ngay foog da la ciatu ay yow bu la ko yàlla nga xam nangul suñu borom ni ko xel mi ma defal dafa ñaw motax nga xam ni mëna xam ak cant la sëñ Tuubaa lu dégg mu ko ci dara jaam lu mu ndamu waaye yàlla mi ko defal la koy cante waaw ndax ndax dafa am ñu bëree bëree bëri dañu sant dañuy xarab mm-hmm. te sëñ Tuubaa ab sant kat la waxon rasulullah motax lu mu rasulullah yalla fay nako na ko la khad kunta sabaran sakooran wa nasian alayka la ya ma hiya jahli mhm. yo mi xamni ab ni ab ab ta kon mag nga ba pare noonu mhm. nekk ab muñ kat yo mi xam ya far ak alayka salaamullahi yaa maa hiyal jahli yàlla yalla yàlla def ci yow jam mom fu ko mos tedde ñal nako motax mu ni seigne touba ni sama xel mu ñaw mi ma yor yalla mako defal ba pare lu bax rek la momay dal man sama xel neena ci ci wéru kor lay rawé sëñ Tuubaa xel mi li muy ñaw ñaw nee na weeru koor lay gën a rawee zakaw xaxliya bi sahri ramadana wa xayrihi lii xaada xayra fayadaan maanaam weeru koor lay ba pare may day day bëbb di sotteeku day bëbb sotteeku moo tax mu ni xam nga yàlla ñu bari da leen dig ba pare di xaar ndax da dëngal mu door leen ko jox julli gi ni julli sax yàlla dañu koo dig koor gi ñu koor nekk ci yàlla dañu koo dig laxalakum tattaxoona bu ngeen wooree ba noppi mën naa ngeen ragal yàlla ndax ngeen ragal yàlla yaa ayyuhal islaamuna irkahu wasjudu wa'budu rabbakum wafhalul xayra laxalakum tuflihuna ndax ngeen taxe bu ngeen julle ba noppi bo ajjumaa na ngeen dem julli ji fa sa khudi salat salaat fantasiro fi laat wabtaxu min fadlillah waskurullaha kaseeran laxalakum tuflihuna ndax ngeen taxe parce que nit ngi jaamu yalla ba pare nekk jaamu yalla yalla duko ko nangu parce que ñu bare bari dañu fogg ni jakk yi bari ci réew bi mo tax l'islam di dox ci aduna bi juma ju xoolal jumaa ju la gën doy nak boo demee boy julli fi ngay teg sa dal teg fa sa téléphone boo génn doo ko fekk xam nga kan moo ko sàcc julli ñu ñëwoon julli si kenn ko ci sàcc ba pare julli la ca mi ngi julli ba tey baaxul waaye sëñ Tuubaa nee na sama xës la yi ngeen di jàng mooy dilal lislaam rajawtu inqiyaadul isbi lillahi waxda bi xatti lisi yaxya bi xeeru islaamin mu ngi xasida yi mooy dundal islam moo tax dee leen ko jàng rek arrangé wul ab kàccoor nee na arrangé wul kàccoor xanaa xamoo noonu Sëriñ Tuubaa yi jëruñoo xeexal ak a xuloo ci mbedd mi dalay manquil yow del jàng xasaay rek muy seen posam kitaabati kabatatil fujaara arrangé wul kàccoor yi nee na dañuy daw suñ ko déggee wa fi sabilillahi lan ujaara moo tax yoon yàlla du muy trawante man mhm. ba pare ne na moo leen di teg gàcce ba kër ñuy dugg sawara sintu makaatiba tadoo muxsiya kulla muhaadima tadoo mukkiya xanaa xamoo man sëñ tubaa li ma bind ci géej gi moom a dàqal tubaab yi moom tubaab yi moo luñu ma dal mhm. nafat kitaabati la dal kataiba landaa man felo sa wali atabat xaladaa yàlla mooma dàqal tubaab yi sama mbind mooma mbind ci géej gi mooma dàqal ba pare sama xasaayid mooy canuk jigéenu xawri xeer ya raadat xasaayid allaxiina fil buxoor bi man yaxud li bihaa muxoor ba pare mooy tàggat mooy mooy mooy tàgg mooy dàq iblis ba mu daw moo tax iblis ñimawu ko mhm. isa katabtu aw xaraftu jaa ilaya maayu àqura jaa saa yu ma bindee wala ma jàng rek sëñ Tuubaa ne damay gis lu dëggal sama yaakaar ma a am yaakaar ma ba su may bind daw di làqatu fu ne mu dugg fa te ba pare buy daw du ci boole sax daw kese waaye day kebatu di wax naan kii lu ma ko def ba mu gañe ma lu tax mënumaa gañe kenn waaye moom heure bu ñëwee gañe ma isa xaraftu aw katabtu xër wala iblis fawran maa man taxaw la nee na ma ngay daw ànd ak kebatu gu rëy rëy kon serigne bi ci wéru koor googu lima ma lepp na ci wéru koor la ko yalla maye ndax neena ba muy dugg aljana man sama mbégte day yok ci mbégte rek lay sax waaye ilal jinaani khad rabbi ruhi bil basti wa tafsiri wa tasrih ni yalla sunu borom nek yalla bëgg gi ma yalla bëgg ba pare don gu ma doon xaritum yàlla nee na loolu manam ku soxorul wala yow sa xol leer wala tak tak xol xam nga ni touba neena man yalla la lool leer na ñepp lam yakhfa fa khalilallahi na buut mukk nekk mu nekk xaritu yàlla waaye xalilu abdihi ibni abdillahi ba pare doon gi ma doon jaamu yàlla di xaritu doomi abdoulaye ji loolu leer na ñëpp moo tax sëñ Tuubaa nee rasulullahi man rek maa koy bégloo yasur ahmad ibni abdullahi sama mbind koy bégloo moo tax loolu ku war na cee bàyyi xel xam ne sëñ Tuubaa doon gi doon yàlla di liggéey yonent bi nee na du lu ma sàkku ci yàlla yàlla la neex mu def ma ko te yàlla sunu borom lu ko neex lay def te moom moom yëf ba pare da koy maye te sëñ Tuubaa bindam gépp dako ko yàlla bu wax ne na mbolem xeti man man sëñ Tuubaa sax ma maa jomba def dara di def lo xamni yàlla dako tere rus na ko def man yàlla mun yàlla mi xamni mo ne moo dominé moo dominé monde bi monde bi yalla ko dominé aji dominé ji mom yàlla naxëni xubu lay ni xamal mu ay minu andil may tere jenn xamaxtiira loo gis ma tànn ko rek yàlla ma ko tànnal wala xabaru ci ci dëgg laay sax nee naa moo moo tax moo leen xeeti caaxaan yi ngay dégg man dama ko sànni ci àll ba du ma ko def nabastu laxa xabdan li mawlaaya wax dëfoo yàlla rek doon sama buur na kul yàlla mënoo ko doon xandi man li man xandar kii kalatal sunu ne yoon saa salama li ma ko bëgg a wax lamiñ lot na ci wax ko ba pare jëmmi sariatul islamiyya comme yàlla daf mako ko dénk ba pare motax tax ma dëgërloo yàlla sunu borom subhanahu wa taala wa sixtu bi baaxin sirtu xabdan lahu khadiman li xari bil muksi wa safi motax mu doon jaam yàlla buy liggéey rasul lay génn bëgg la am muy yàlla ben objectif la am muy yàlla ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax serigne bi dafa wax ni yàlla sunu borom ci bopam nek gi mu nek xaritam xam nga na bur waxna naa ni na bur waye ne nekk gi mu nek am jaam ba pare ni sokkam yàlla loolu tamit leer na ñëpp ba pare yàlla moo ma seedal ca lawhul mahfuz ni leen Ahmadou Bamba mii kat fu mu jëm moog alxuraan ànd. loolu yàlla ko seedal Ahmadou Bamba fu mu jëm moog alxuraan ànd sahida lillahu wa adra junda bi ànd nii maal kitaabi xinda loolu nag yàlla ku muy seede wax dëgg yàlla ca bare nee na yàlla daf maa génne yàlla dafa maa gindi comme gindi gindi gam gindi woon Mariama <laughs> xam Mariama dafa am doom. jaaxle lool. Sayyidatuna Maryam Sayyidatuna Maryam waaw. Mhm. ëmb boo xam ne inadvertent la loolu fi la ak jaaxle yam yàlla bëgg ko dimbali tax mu ne ko gësuma tàndama gi lekk booy lekk di am doom bu hussi ilayki bi gisi naxlati te saxat alayki rutaban janniya surtout Mariam mu lekk ko daal di am doom moo tax ñu koy digal jigéen ñi buñ fi tollee léegi nag problème des na mu ni ah man de waaru naa sama dund gi de dee sax ku gën yàlla te li mittu xam la xansa wakul nisyan man siyan lu may wax su ma demee ndax bokk ki mbokk bu baax bi mu ñëwee mbokk yi ni ko def nga erreur sa yaay sa bàyyi nañ baax ñoom doom jëmul bàyyi maakaana abooki imra asawin wa maakaana tumu si baqiya yàlla wax liir bi ne ko tontul yaa mën a sa yaay mu ni imi xam lay atil kitaaba léegi nag pour mu gën a set dëgg sëñ tubaa nee nag na ko yàlla gindee ci mbokkam ya ndax bi loolu amee daa doon xaaral ma dem sama mbokk nit ay mbokkam rek ci la xaj fatabasalaha basran sawiyan waaye fantabasat min ahliha makanan sarxiyan di nga fantabasat sëñ dari nag daal di jël loolu fantabasat boobu daal di wax ni hadaaniya lasi hadal muntabata yaa ngi dégg yàlla gindi na ma comme na gindi woon Mariama min ahliha fasilahi muntabasa waaye gindi ko na de ca mbokk mi yëpp xam ne gindi ko na moo tax di wax ni sëñ li mu am kenn amu ko sëñ sëñ Seex dëgg la mooy fi nga bokk askan wi nga bokk wormaal gi ñu la wormaal ak fi la yàlla jaarale yow Mouhamed nga tudd ndax ñoom la tudd Ahmadou Bamba Sall sa bàyyi tudd Mouhamed bari xam-xam tax ñu naan ko moor sa wajuru mana mana a yalla tax mu deg jaaru filaay lay waye maryam do tuddu turum non batay deg ko kon sa wajuru jambar la sa bàyyi kiko juru muhammad la tudd muy abibulaay ki juru mi maam maaram abi muhammad la tuddu te bo gisee seigne muntaha bu yàggul dafa genn wax senegal jaxasoo mu wax ñu bàyyi mu sofé senegal ci coow li war na am loolu sëñ maam ko njëkk xam nga ni hmm amari ngone ndela ray ray japp ma lamin saar rey mhm. jàpp sëriñ daara yi ñu wax ko mam maram ku nit la woon wala askanu mbàkke dañuy ma sha allah biñ ko ko waxe mun duma ñew ci xex bi mam maram xex bi diira taxut ada ko taxut jóg da no rey seen sen ngeen bëgg fay duma ci ñew bayyi ba ci deewon sa mu dogo ñew jale ci si ma min sar jaale kajor barke nak agul ci manam di ñew jolof di ñew bawal fatte sa kala sa kala jolof ñi di ko jox jalante ku ne war fas ba us fi fi la am booba la njëkk jàkkaarloog buur wax ko dëgg kon sëñ Tuubaa bu melee nii ci njàmbaaram ginaaw bu weesu ak njàmbaaram say maam ku mu baax nga war a mën a baax dëgg la ndax bu fekkoon sëñ Tuubaa daa julli ci géej gi rek dem ba ci biir géej moo war a julli fàttaliku ne man kat sama maam Ahmadu soxna Busa mu jur asawaalo soxna jaara sama waajur bu mu saan déggu na day doo ba yëri xotteeku kon war na ma a julli fii waaye defewu ko karaama parce que yàlla ñu ko bind ba pare sëñ Tuubaa di ko jaamu ba mu gane jamono ba tey musta mooy su boromam Cheikh radjal Masari neena nendau doone ndaw la jay bànneexam yàlla moo tax jeex bahal hawa bil huda lillahi fi wa hasa fi kibrihi an bila sanadi man sey may jaxat neena musul tan lulul ko yalla tanal bi mu ndaw ba ñu mak wa makhtara sayan khayra makhtara raba wa muskana tiflan lam yamil li hawa motax seigne touba ci lolu ni mu sowe ni maam sowe alquran noonu seigne mu daxaa ñëw ko kon duñu jaxal motax seigne touba wax ni neena seigne touba neena ku yaqku dama jublu ku yàqu du ma jublu ak fu yàqu du ma jublu ku yàqit du ma jublu waaw moo tax kon nañ sant yàlla raddali xelil la kulla mafsada wa kulla mufsidin wa kulli mufsida waaw ba pare nag wax ni fu baax tamit mu ngi fi man ku baax mi ngi fi man kuy baaxal it ci man lay ñëw mhm. kon ñaar la yoo xam ne bokkul mhm. maanaam yàlla indil na moo mboolem lu baax ak ku baax ak fu baax radda ila ilayallahu kulla musliha wa kulla muslihin wa kulla musliha moo tax sëñ tubaa sëñ seex nee na yàlla dafa maa defal loo xam ni ci atum asas muy 1301 ci la taxawal yoonu murid ba ci atum masas 1343 dialogue 1821 1921 sëñ tubaa nee diggante bi loolu fi mos a tàgg rasula yàlla nangu na ko sallallahu alayhi wa sallam ca boobu demagul géej bi bi mu ñibbisee nee loolu fi mos a tàgg rasula yàlla nangu na ko madda ilayallahu min haami asas wa xabilal xidmata min haami masas kon min xaami asas kon mhm. sëñ Tuubaa mu ngi noonu sëñ Cheikh. comme temps bi sori na waaw géej la gu tàbbi géej